mais ba léegi c'est le statu quo dara changé wul au contraire situation bi dafa gën a empirer ndox maa ngi nii fees fi del te fi moy première pluie avant première pluie sax ni la meloon léegi première pluie ñëw na yëf yi gën a ndox maa ngi nii ndoxu regard yëpp ay refoulé boole kaa ndoxu eau de pluie. fi dañu fi sonn trop parce que comme nim ko waxee lu mat 1 an wala lu ko ëpp ni lay def deux jours yu nek <coughs> au usée bi day génn bu nous ñu à après mu dellu si waat ndox yi jógee ci Nous yëpp lu daw fii la jëm waaw gendarmerie dara ñu ni waxuñ sax lolu mais mënuñu dëkk nak ci ndoxam ndox bo xamné ne bi ñun suñu zone bi sax dans le réseau bokkuñu ci réseau assainissement bi parce que aux on nous sommes trop bas par rapport à ce réseau donc mun bokkuñu ci réseau bi mais nak du jaadu bon ñun ñuy recevoir eau usée muy dem ñëw ci suñu mbedd yi ak suñu kër yi te loolu moom la ñu dëkkee. donc ñun vraiment sonn nañu waaw sonn sonn nañu et ci lii dafa dëkk bi bu arrêté nii deux jours après mu ñëwaat waaw dañ ñuy promettre rek te li ñu promettre duñ ko def waaw vraiment sonn nañu waaw ñu bëgg nag ñu jàpp ci dimbali ñu. directeur surtout que directeur ONAS bi ñu recevoir daf ñu ne maa ngi dëkk Maristes mais waxuñu ne sax fii la dëkk mais il habite à cent cinquante mètres ma gëm ne bu yeewoo suba rek balaa muy liggéey mu ngi janoo ak li waaw donc nak ñun bëgg nañ vraiment ñu trouver ñu solution parce que mënuñu dëkk ci li ñun sonna nañu ci ndox mi non seulement dañoo sonn ci ndoxu taw bi ba noppi ñu sonnaat ci ndoxu foos yi ñun amuñu jàmm man mi di wax ak yow dama toxu sama kër parce que chaque année ndox mi day dugg ba sama biir gendarmerie ñëw na fi def nañu constat gisatuñu leen. fii ndox mi léegi day xeeñ ba appartement bi ma jël nii kër yi yëpp ñu fi nekk du ñu am jàmm oto mbalit bi sax daf fii ñëw fan yii yëpp mënuñu génna oto mbalit bi bu ñëwee fii bu feesee du ñu mën a tuut suñu poubelle te appartement la dafa metti nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali feebar yi dañu bëri ñu dimbali ñu borom njaboot lañu monsieur le ministre dimbali ñu Macky Sall yow la ñu sànnee suñu kaat dimbali ñu dimbali leen ñu sonn nañu ay njaboot la lañu dañu am ay doom fu mu ne nii kenn mënut a di nga cuuraay sa néeg ba sonn. di nga def lu ne wallahi lazim xet bi sa biir néeg la lay fekk ah ak feebar bi ak lu ne ba ma déménager sama kër ndax ndox dafa metti na ñoo dimbali te yàlla tax sonn nañu